وأمي وزوجتي وولدي وذريتي وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحرمة الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا قيما وأنزل القرآن صراطا مستقيما من تبعونا لفوسا ونعيما والصلاة والسلام على من بعثه لا يقص الأمة وأبقى جنة كريمة وعلى آله وصحبه خير الأصحاب ومن تبعهم إلى يوم الدين أيها الناس حديثنا اليوم يتألق على أمر سيدنا إشاره الله ابن سيدنا الإمام المهدي أولا وآخرا في رجوعه وسنتحدث فيه ما يملأ أذهانكم ويفرغ قلوبكم إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قلنا بنو سنتي يالله mooy boor bi nga xam ne moo def lislaam muy diine ji jub mu wàcceel na alxuraan muy digg yoon jub wa képp koo xam ne topp nga ko da nga am mucc ak xéewal xéewal gu ñu lëkkaleek ak mucc yàlla na nekk ca ka ñu yónni ko ngir mu xettali mbooloo ma tàbbaleen ajjana wa ala ali wa saabi ak ñoñam ñaar saaba ya ñey ngeen ji saaba ak ku leen topp ba bés penc ma yéen mbooloom jullit ñi sunu waxtaan tey mi ngi aju ci mbiri Seydina Isa Ruhullah kay doonu Seydina Limaamul Mahdi awalan cëg njaal beenam wa axiran ak ak mu jëm fi rajo yi ci dellu suyam mu ne nag xel san nonoo waxtaan ak yéen ci moom loo xam ne dana feesal seeni noppa bégloo seeni xol bu soobee yàlla yàlla nu ko yàlla defal commencé na ko waxtaan wi mbooloo mi di ñi nga xam ni ñoo sos bés bi ànd ko ngir cër bi leen yàlla sédd ndax cër bi yàlla moo koy séddee kon bi mu leen ko séddee ngeen séddoo ko wanal leen ci seen cofeel yàlla leen yàlla fay waaye nag ci war may sang bu tedd bi toog ci mbaaxam tànn gi wu ngeen tànn bëgg waxtaana leen Seydina Isa ma ni damaa wax ni kuy dem ci miraasam bàyyib jàmbur wax fa ba ñu may la faw nag wala gëleem sa miraasam bàyyi du jara wax ma kuy dem ci miraasam jàmbur bàyyi jàmbur wax fa ba may la faw nag wala gëleem sa miraasam bàyyi du mat wax kon ku may waxtaan ci Seydina Isa dana am solo yéen nag garab gi ngeen ma laaj datt bi ak car yi man nag danaa leen ci boole reen yi ak datt bi ak car yi insha allahu taala ndax isa ndey ja kéemtaan la waaye nag ndey ndey ja mooy kéemtaan ja ci la kéemtaan yi da xëyante yàlla isa soxna suñuy wax annatu moo jur mariama mariama soog a jur isa anatu góor gu ñuy wax imran ñu jur mariama ana luy sabab ak jur jur isa anatu mboobu di soxna si a ah, القران جوغ ريك ديف ديريكت تي ترو دا واخني يعني واسقال امراه عمران تي سوره عمران واي ندي جي انتو لا تود نياري انتو لا نيو بلي انتو لا تود بلي انتا انتو مو جور مو جور مو جور آه، مريم انتا مو جور يحيى انتو بينا موتو بايغ موني ربي اني نصرت لك ما في بطنه معررا mu ne yàlla maa ngi lay ñaan li ma ëmb ci sama biir bii nga def ko góor te sellal ka ndax mu di la liggéey li ca bay ci max bi loolu la soxna si ñaan waaw fa taba fa taxabal mi ne innaka anta samin alim na nga ma nangul yow yàlla yow yaay dégg te amooy nopp di gis te amoy bët kon nag na nga ma nangul man soxna si lii ma la ñaan moo tax mbiri isaa boo tëbee dugg Mariama wacca ndeyam def nga erreur parce que ñaan gi andi coow yi ci ndey ci maami Isaa la jóge mu ñaan mu wax loolu yàlla falama wadaha xaalat rabbi inni wadatuha unsa ba mu muccee wasin sëbboon geesu gis muy jigéen te moom góor la ñaanoon téere bi ne bu ragal loon yàlla dina ko ne yow yàlla war nga ma de tiraayil nga ma de ngir man ñaanuma la woon jigéen góor laa la ñaanoon foofa sunu borom tontu ko rek wallaahu ahlam bi ma wadaftu wallaahi maa la gën a xam ni nga jur walla waaye woon lay sa sakkaru kal unsa waaye góor dafa melul ni jigéen ndax jigéen dafay am lu koy gaar ci jaamu yàllam léeg-léeg lëf ko ba nu mën a jaamu mooy seeni régal yooyu bu accès ci ñoom seen ak jaamu day moo tax lay sa wa lay sa sakkaru kal am sa waaw jigéen a njoo gën a fóor góor yàlla yam foofu waaw waaye ginnaaw nag loolu la man yàlla doom ji maa koy jëndalam xar maa koy leewu maay rendi xar mi maa koy tudd muy mariam mu daal dem leewu mariama moom sunu borom ne inni samaytuha mariama ne tos man yàlla liir bii tudd naa ko mariama waaw ndey ja soog nag ne kon aa liir bu yàlla léewu tudd ko kat foor na kon kon wa inni uisuha bika wa suriyatiha min seytaan rajim kon yàlla maa ngi musli ci yow ci sama doom ji nga musal ko ci seytaane ak lu mu fa taxabbalaha rabbaha bi qabulin asanan yàlla nangul kër ñaanam nangul ko rafet moom soxna sa wa albataha nabatan asanan mu may ko doom yu bari yu rafet wa kafalaha sakariya sakariya daldi ko yar waaye yarab sakariya mariama nag dafa am histoire ndax bi ñu gisee yàlla uuf leer bi la dëkk bépp jóg ngir isaa mu ngi fu ñuy wax baytu laxmu bayti mahdis la ñu koy wax mais nag ca banlieue ba la juddoo bayti mahdis mooy capital ba bayti laxmu ca la isaa juddoo moom ngeen yentuwaay moom ngeen di wax la la la Batlem foofu la isaa juddoo fu ñuy wax Batlem ci tuba waaye ñu ngi koy wax ci arab baytu laxmu ci banlieue bayti mahdis la nag foofu fa la juddoo ñu ne ginnaaw liir bi nag yàlla moo ko kon ku ne na maa koy yor góor jóg jigéen jóg mag jóg ndaw jóg ñu yor gànnaay mag ñi jóg ne déet waay nanu gëmmoo gëmoo fi daa xew ñu daldi wut ay banta yett kay xalima dem ca nga sànni ko fa ñu ne ku sa xalima taxaw rek nga yar xalima ko yoon ci yàlla sakriya daldi taxaw ñu ne ko waa jàngoo ndaw sàngoo loolu lépp nag su la borom xool rasulillahi naka yow jàngalekat bi fekk fekkewula woon xuloo bi de salika min anba il qaybi nuy ilayka ma kunta ladayhim istaqtatimuna tey man nettali la yow rasulillah yi man yàlla loo xam ni ba coow lay am fekk woo mooy juddu waaj law si ndax damaa bëgg nga xam xam ngir yow yaay jàngalekat bi yow rasulillah Sakariya daal li bàyyi yonent yàlla Isa a ah, Mariama mu bàyyi Mariama ci biir jàkk yi mu di fa jaamu yàlla di fa julli ba yàgg Sakariya ne ma dem seeti ka ñëw fa fekk fa ñam yu mu xamul ku ko fi andi ak i meññant ay fruits ma ne ah waaye di rus naa kaa laaj fu liy jóge dem dellu si waat nag fekk fa fa accatu say fi fi sitaa yi wa fakki atu sitaa yi fi say bu ñëwee ci digg nawet noor kon fekk fi gerte gu tooy ci biir jàkk ji bu dee digg digga digga digga digga noor bu dee digga noor ma fekk fi gerte bu tooy bu dee digga reenu fekk fi sëddeem mu ne ah kii nag dinaa ko laaj yi fu muy jóge parce que période yi période bii yi ñëw fii du waxtoom mu daal di nag waaw yaa mariamu ani lakki affaire waaw yow yii foo ko jëlee mu nekk min indillahi inna allah yarsuqu man yashaa bi xayri isaabi yàlla moo ma ko yónnee isaa yàgg naa nekk ki man koo xam ni ndey ji la ëmb ñami àjjana lay lekk dinaa ndoxam àjjana mu ëmb la ci loola war ngaa nekk ki man ah foofa isaa daal di dox nag nekk ci liggéey ba ca jàmm yàlla ga alxuraan ne waskur mariama waskur fi kitaabi mariama idan tabasat min ahliha makanan sarqiyan ci suratu maryam waskur fi kitaabi maryam isantabasat min ahliha makaanan sarqiyan fàttalikul yow rasulillahi ba maryaama génn ko bokk ya nag ngir mu ngay màgg mu ngay génn ko dem ca génn na jàkk ja léegi dem na ca penkub jàkk ja toog di jaamu yàlla fataxasat min dunihim ijaban mu daldi wut nag ab sa ab ab ab wurlal bu dox diggante mi ngi ji ngir di mën a sangu ak bañ ko ko gis moom Mariam bis rek mu sangu yàlla ne diggante cangaay li ak solu fa arsalna ilayha ruhana fa tamassala laha basaran sawiya ngi lay wax ci sooratu Mariam ci biir sangoo bay solo yàlla yëbal jibril ne ko nëkkal nit dem taxaw ca wetam ëffal ma ko sama baat jibril daal di ak si taxaw ci wetu mariama mariama xool ko ne ko inni onsu onsu onsu bi rahmaani min ka in kunta taqiyan maa ngi muslu man mariama ci yow day jéem da ngay taqiyan booba nag xale bu ñu taq yu dafa nekk ci réew ma di dogale jigéen ñi di leen saay saaye moo tax naka mariama gis xale bu góor bi taxaw ci wetam mu ne ko maa ngi muslu yàlla ci yow dem taq yu nga su fekkee nag doo moom da ngaa ragal yàlla maa ngi muslu قال انما انا رسول ربك لهب لك لهب لي لك خلابا إيه؟ لهب لي لك خلابا لنهب لي لك خلابا يقول لك دنا ما خمل من سندوال بروم لا جولي يوبسي دوم متى موني لهب لي لك خلابا ليهب لي لك خلابا لنهب لي لك خلابا نهو ببحن فوه لهب غير ما مايلا لك نيل خلابا دوم lii hëbb ngir nu may la lakka ñel la xulaa man doom li nu hëbb ngir nun ñëpp nu dajaloo may la xulaa man doom waaw foofa xaal an yakuni li xulaaman walam yamsasni basaran mariama ne ko nan laay amee doom te aw ma jëkkër te walam ak ku bàqiyante du ma njaaloo mukk nan laay mën a amee doom te aw ma jëkkër teewuleen ak ku bàq yam te du ma njaaloo kon nan laay amee doom jibril naka tekk rek déglu ko ba yàgg jibril naka xaala ka saalika xaala rabbuka a uwa alaya ayinun mu ne wax nga dëgg waaye sa boroom pour nee na mu may la doom te amoo jëkkër yomb na naka lu am solo la ci moom la ko yomb la ci moom waaw walli nag allahu ayaatan li naasi ngir mu may la doom te amoo jëkkër mu war nekk kéemaan ci nit ñi wa rahmatan mina ak muy yërmandatam ci ñu nangu te gëm waaw wa kaana amran mahdiyan bul soow mbir ma yàlla dogal na ko ba nag il faut am doom te doom jëkka fa amalat umu dal di ëmb puisque ndax isaa ñetti waxtu lañ ko ëmb trois huit heures lañ ko ëmb neuf heures dix heures mu juddu ñetti waxtu lañ ko ëmb moo tax ay garaatam ak yëfam dafa rëy ñii fukki weer ñii juróom-ñeent ñii juróom-ñett moom trois lañ ko ëmb huit heures lañ ko lañ ko sol mbir ma neuf heures dix heures mu mu jublu ñetti waxtu waaw ba xamee ni jibril am na mu génn di bëgg a daw génn génn sori moo tax mu ne fantabasa bi makanin xasiyan dal di dem wuti place bu sori pour làqu waaye nag fa ajaha fa ajaha almaalu mat di ko roof waaw ilaa gis i naxlati mu dal di jëm ci ëkk ak tàndarma gi ci kanamam ngir xam ne ni mbir mi ñëw na xaalat mu dal di yóku ne yaa laytani mittu qabla asa wa kunta nasiyan mansiyan ni ma réew mi bañ a ni ma fi bare noonu ngir bere gi ma beru di jaamu yàlla suma fi juree doom ju amul bàyyi tey fu ma jëm di yow tey yaa lay tini tu qabla asa wa kunta nasyan mansiyan yàlla te kon yàlla nga rey balaa doom ji juddu ndax may fàtt di ku ñu fàtt waaw loolu lay wax ndeysaan di yuuxu di joy rek jëm ca kak tandarma ma waaw fanadaha min tahtiha ala تستني قد جعل ربك تحتك فناداها من تحتها ألا تخسني قد جعل ربك تحتك السريع am lu ko ne hey ba muy dem di yuux am lu Jibril la mu ngi koy taxsani bul jàqawaay xat rabb xat jaala def na rabb ki sa borom tax ki ci sa suuf sa reen ab sang Jibril daanu la Isaa dal di jub meret ma dal di monte ci bopp Mariama ngir gaaw ga واو نعم. يالا جبريل سمير لي اك جي يور كي دانا خري يالا نيكا نيكا نا اسري جي اك جي منك واو واو منك نيكا اوسي اليكي نيكا نا گسم اك جي نيكا گسم واوسي الي بيجي النحله تساخر تساخر تساخر تساخر su fekkee tëggum naxu bi daf laa jox tafaala danga naa tasaaxal su la joxee tufail nga ni tusaaqit bu ci nekkante naka tasaaqat tusaaqit su fekkee bu naxu daf laa tëggal tafaala danga naa tasaaqat la tëggalee tufail nga tusaaqit yàlla ne ko gisamal ëkk gi kon tusaaqit dana wadd dana rot aleyki ci yow ruta ban tàndarma ju tooy janiyan ju ñor ëkk gi fi am ñetti téeméeri junniy at waaw gaawal léegi danaa ko tooyal jibbil ka sëqal ka tóor tóoral ka meññal ka ñoral ka léegi léegi léegi nga lekk ci sama kantaman yàlla loolu looloo xaw fa kuuli wasra bii nga lekk ci te naan waqari ay nan te sa xol dal na sa xol dal yow mariama na sa xol dal waaye nag dinaa la dénk man yàlla fa imma tarayaana fa imma tarayaana min al basari ahadan fa quli inni nasatu lirahmani sawman fala nukallima al yawma insiya waaye soo jógee fii nag ñi ngay dajal ñu bëgg laa enquête da nga leen di wax ni man mariama day tey dama sàkku noppi du ma wax ak kenn tey moo tax inni nasatu li rahmaani sawman jooju sawman firiwul koor foofu sumtu lay firi noppi jooju sawmu ndax jigéen ju nekk ci meret du woor inni nasatu li rahmaani sawman falan ukallima al yawma eh, al yawma ilayka insiyan loolu sawmu jooju firiwul koor sumtu damay noppi tey duma wax a kenn ngir yàlla day bañ koo ko enquête noo jureeg fu mu jaar yooyu lay bañ waaw loo ci mën a dégg nag kenn fekkiwul mariama Mariama moo daal di jël liir ba def ca biir ba yenul ko boppam uti mbooloo ma nag waaw eh, moo tax mu ne fa atat bi xawma taxmilawu moo yenu liir ba andi ba mu ko andi na xaaloo dëkk ba ne ko yaa Mariam laqad jaxta say an fariyan ah nga nu mu jéggi daya de yaa uxta يوم بكم أر ما كان أبوك أمر عصو تو ما كانت أمك بقية يوم يوم بكم أر نمي صباي إن بانو مسلا دفلو بان تسندي مسلا نجالو نجد نو أندل دوم جامل باي رمغ يدال لرددي وين أم أم فلي نجاس جوخن إيسا لير بنا لرلاج لن كوكو كو بخم نمان كان جالو مدين waaye ñu ne la isa moo joxoñ mbooloo ma déet mariama bañu ñu kan ne yaa nu andil doom ji amul bàyyi la geesu ne leen laaj leen liir bi ndax dama kaa njaaloom déet fa asaara ilayhi xaaloo ñu naa kay fa nu kallimu man kaana fil mahdi sabiyan nan la nuy waxee ku nekk ci biir biir soom nàmpagul sax kii xanaa dox nuy bontoo ba ñuy wax loolu rek isaa nañ kat ne leen inni abdullahi aatini alkitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan gaa woyof leen yàlla bàkkuwul kenn ci rëy inni abdullahi la wax dañu jaamob yàlla la néewul inni rasulillahi néewul inni suumaalin néewul dañ ne nag inni abdullahi dëggal na bi rek ba ko yàlla bi daka ni subhaana li si asri bi abdi yi lay leen la ko wax yàlla ku ku ne ku ne mit la bëgg ku woyof inni abdullahi la wax aatini al kitaaba maay jaamob yàlla bi ñuy jox téere bu ñuy wax linjiil waaye fekkal mekk mokkal na tawreet nag moom isaa ci biiram ndeyam ba noppi te tawreet nag junniy saar la te wenn saar wu nekk toll na ni kaamilub alxuraan te isaa tari na tawreet ci biiram ndeyam jàng at yi sugu jub waaw wajaala nii nabiyan wajaala nii mubaarakan man la yàlla def yonanta daf ku ñu barkeel اينما كنت فما نمو باركل يين كام بيرن خام غين لول يالا مومو داف يوننت داف ما كونو باركل با فما نمو باركل اينما كنت رك موتاخ ما وخون تسما كتاب بني فإن أصل القرية لا تخلو من مقال والكرامة ما دامت الرعامل في جسد سيدنا إسرائيل ما وخني سوفس كامبرين أدك بي koom ak ca dëng du fi jóg fépp suufa nga yéen a yàpp say naay saam wajaalani nabiyan wajaalani mubaarakan liir bay wax ah déglu jàpp leen jàpp leen ci lu matul a jàpp yéen ngi jàpp ci lu mat a jàpp téye ci lu mat a téye yëngoo coowa ma ni cir bu ne fang mënoo caa kola dara xamoo fu mu départ lu lu ci yàlla direct foofu fii fii fii rek la ne koo xamul fu mu jógee mën naa doona mool ngeen nekkoon wala muy baykat mu jekki ne yàlla mu yónni direct يا كارنا بيك يا ان شاء الله آه. تمتعني وبعدك ابن الشعبي دفا توغ الشعب يبا يق من بل نقلب خلبا ان رايتم رجلا كمثلي في اب رسول الله دفا جوك تخاو دانو نلن قتلن سما قلمن وبعدك سو نين غيسه كوم لي من تي بوغ رسول الله ngeen won ma xarit muy sama soppe may di jaam foofa ñu dal ko téye mu toog yonent bi ne mën na leen na leen na leen tafasaw yafsa'u laahu lakum yaatal leen seen i toogaay yàlla yaatal seen i kër ci àjjana ñu ne dayeet daraja ak yonent bi toog ne leen laysa bi karimin man ya us sigra abibihi mu ne nekkul nit ku baax kook dañoo tudd turu ko mu sopp te yënguwul yonent bi ne leen nekkul nit ku baax kook dañoo tudd turu soppeem te yënguwul fettasuwul ma ni yaa ngi dégg nag fi isaa ñëwee ci nun mu ne yàlla def na ma loolu waaye nag wa awsaani bi salaati wa sakaati maa dumtu ayyan yàlla nag bi ma noo defee may yonanta muy may ku ñu barkeel dénk na ma julli dénk na ma natt asaka fekk maa ngi dund wa barran bi waalidati ak topp sama waajuru jigéen ngir wa barran bi waalida waaye amul bàyyi moo tax mu ne wa barran bi waalidati ak topp sama waajuru jigéen wi de waaw yooyu la ma yàlla digal isaa nag ci boppam moom liir ba dal di ñaanal boppam ne wasalaamu alaya yow ma wulittu wa yow ma amutu wa yow ma ab asu ayan yàlla yàlla na ma musal ci bi ñu ma juree musal ma bi ma dee musal ma bi nga ma yebalaat te may dundaat moo tax ki naa isaa dellu si du dellu xamul loolu waxi ko kontar la rek yow ma yu asu ayan musal ma moo tax kenn mënulu ko dara mu ba mu dab liir foofu la ñaane loolu ne que nangu musal bi ñu ma juree mu ma bi ma dee wa yow ma yu ub asutan ayan nga mu ma ba ba ma may yónniwaat wala xat ba asalaaw nabi yaa Muhammad xanaa yéen a ko wax nga naa isaa ñëwul ngir isaa mu feeñ ci bàyyi lay rek loolu kan mooy ñëwul gi tegul fen lu mooy rek bàyyi laay woote ne ne yàlla ak yónni ànd ak isaa isa ñew di isa jamono bañ lank fekku gedd euh, daj na isa du delu ci yalla ne dina delu ci nga ni du delu ci bokay koy bokay boo motax alquran salik isa ibnu maryam nu bàyyi ko koku isa borom fit la xawlul àq te mooy baatub dëgg ba lësi mooy ka nga xam yam torono don ngeen werante fi ci mom waaw ma ne kon foofu fale isaa moomu fale isaa moomu jeexee ñu ne kon isaa ba mu nekkee ca diine ja israila song ka nag ngir sunu cër la su deful woon noonu kon nu ci jot mu ngi nii tëdd mu ngi nii tëdd ndax ba muy fagu te làbba am juróom-ñetti fan ci sunu tund yi dugg kambareel ak takkusaan nag dañuy tëj leen ma ci néeg yi moom sëy naa Isaa mu ngi tëdd mu ngi tëdd ma ne yéen ñi moom bis bi màggal leen na ñëpp màggal Sëriñ Ablaye na ko ñëpp màggal ku fi toog rek indi leen indi leen indi leen indi leen indi leen mu door a continuer indi leen mu door a continuer na ñëpp indi mu door a continuer indi Say it.